Sumbay na niyo umesa bay dañ ko denk Macky Sall denk ko Marème Faye Sall ndaxte mooy tey jii mooy suñu Macky Sall mooy suñu Marème Faye Sall ndaxte gisuñu mënu fi loxoom jotee mënuñoo gis Macky mënuñoo gis Marème waate nag lu mu am montagne la ko yéene li mu fay def kenn defu ko fi li mu fay wax waxu kenn waxu ko fi lu mu am daal balaa muy gestu kenn gestu na waa montagne kon nag denk nañ la Macky Sall jàppaleel Cheikh Mbaye jàppale ko nga yóbbul ñu ko fu kawe kawe kawe kawe kawe kawe kawe kawe ay doomu aadama ñoo nekk bu ñu xëyul fóote duñu lekk suñu xëyul liggéeyi duñu lekk nit ñaa ngi ñuy daw ndax feebar yi te ñuy fay lu yaas di def lu nekk kon nag Macky man maa ngi nii di leen ñoo mëntaan yëpp dénk nañ la seex mbay te fekk nga ñu xam ne suñu doole wa bëriwul nga ñëw roof ñu loxo tey jii ñu ngi lay sant bu baax baax di la gërëm bu baax am na ñu ko mën a am am na ñoo xam ne jafe na leen comme ni ma la koy waxee rek Cheikh moo fi nekk tey jii am na ñoo xam ne amuñu fi ndey amuñu fi baay ah, sësuñu ci kenn tey jii seen problème ay problème la parce que fi ñu doon liggéeyee tey jii ñoom ragal nañ tey jii ba bàyyi leen tey jii ñoo ñu di yendu ak ñun tey jii fi tey jii amuñu nen la ñu leen di def tey jii nga ñëw tey jii roof ñu loxo tey jii ñu amuñu dara lu dul di la sant di la gërëm yàlla mi am fay nag yàlla na la yàlla fay ñu nag ñu xam leen parce que kay bu ma taxaw ne nag yàggu yi tey jii di nga dem Kumbis wala Cheikh Mbaye bu leen fekk dañoo ñu dàq leen ñii liggéey ñu dem dàq nga ñoo ngi nii fief dañuy fi montagne dee fees dell bëccëg bi yaa ngi dégg nga dugal fi li nga dugal nañ li ngay def de nga foog ne gisuñu ko gis nañ ko yàlla na yàlla jàppale ci kaw ci kanam rek indi nga fi ay tonu suukar indi nga fi ay tonu ceeb indi nga fi ay tonu diwlin kon boy ñewé xamni fièvre amna ci aduna nga ñew indil wa montagne ni dañ la wax jërëjëf man lumay may wax rek mané tay fuñu fu ñu nekk nii bi dafa nekk ci aduna bi duggu Sénégal man nak bu mu duggee Sénégal xalaat naa fu nekk bëgg na dem fu nekk wante nak sama dem yépp fi la ko ñëkke ci montagne may def appel discours bi du gudd ndax tey du discours politique du discours dara discours boo xam ne la seen frère seen doom seen xarit moom moo ñëw xalaat tey feebar bi mi ngi dugg fu nekk ma xool montagne nu mu mel ma ne xaaral ma xool loo xam ne am naa ko ci sama doole pour ma indil leen ko feebar bi nag dañuy sensibiliser du loo xam ne caaxaan la te tey ñëpp ñoo xam ne dañu nekk ci àdduna bi muy docteur yu mag yi dañu ne ñoom dañu yaakaar ni lépp loo xam ne mën na la ci muccaloo lii daf ci bokk mooy fu ñu toll ñuy raxas suñu loxo ba mu set ci produit yi nga xam ne gel alcoolisé wàññi nuyoo bi wàññi demalante bi wàññi loolu yëpp du pour toujours nag pour dañ ci toll rek benn période bu ndaw la loolu moo tax nag tey man ma dugg si fii montagne ma bëgg lu may wax ne dama am ay site internet yu ma àndal bugguma sax ñu jël dara mais lii moom bëgg naa ko jël may def appel première dame Marème Faye Sall di ko wax tey waa montagne ñi ngi nii ñu fi nekk bëgg naa mu ñëw dugg fi nga xam ne moom ci ndimbal lañ ko xam ak def lu baax pour mu ñëw jàppale leen ndax ñii dara taxu leen jóg lu dul daan seen doole rek ak luñu am am wat ko fii seen njaboot demuñu fenn may wax population bi ñi dañu bok ci ñun tay man lolu motax tay man fi la dugg si dugguma sama koñ bama dekk fama yaro fama magge ñew ma famé damay ñew montagne ba ngeen xamni ne yëg naa leen dama ñew ni rek mais luma wax ak yeen sam na ko dina delu ci wat inshallah té tay may wax képp ko xamni man xamna na Cheikh mbay wala nga bëgg ma wala nga nekk sama xarit soo ma mënee jàppale loo may jàppale bul ma jàppale ci fenn ñëwul nga jàppale ma ko fii ci montagne ñëw indil leen loo xam ni feebar bi suñ ko defee incha allah yàlla mën na leen ci dimbale ak indil leen ndimbal bañu ñu ci dara nag si ceeb si dëwlin ci dund ndax ñi dematuñu fenn liggéey tuñu fenn tey daal appel boobu laay def incha allahu di leen wax nag yal nañu ci yàlla musal ci feebar bi te balaa yàgg yal na ko fi yàlla jëlee te am nañ ci yaakaar ndax ñun suñ kilifa diine yi ñoom la ñu am te ñoom ñëpp ñu ngi ciy ñaan Sénégal tam ñëpp ñu ngi ciy def loo xam ni moom mooy seen devoir njëkkee ko ci sun président Macky Sall ak ministre de la santé kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen wax dinaa dellu si incha allah du yàgg. برم أقدم كل ما شاء أقدر تفرني سلام بي ما جاك بي ما جاك Alhaji Mansur Meli di Owesa Bay away.